ar wala microscopie am professeur ba ca Casa de Papel ndax nag wàllum schéma ak tactique ak dugal ak génne moo ca teg tànk moom jiitu réew mi yëral l'info moo ko xëy daal di waxtu yi nga xamante lii di ci wàllum ko doon teg def ko kat gayaar nag sës ci miir wis présidentielle avant la fin de son mandat Macky cède à la pression des sept sages Nous nous ko l'info daal di xëy bi le jour même du ko yaatal les sept intransigeants nan ñu koy ñoom sept sages yi koy kafuñu foowuñu réewuñu fañ teg seen tànk fa lañ ko conseil constitutionnel dafa toog taab ruqam bàyyi ba Macky Sall woote ab dialogue tinkufu, tënk fa daal di ko jébal ñu daal di ko jël lépp dëxëñ ba mu baax daal di ko tàbbal biir géej naan ko nag bu bëgg nañ la fonk nañ la na xamal moom du ça ne passera pas maa la wax de ne passera pas yi la décision d'ohut, baaxut du ma ko jël benn yoon la la rek fama tek sama tank, weesu ma ko buusewu ma élection moom laataa la de rek laataa la de rek te yow Macky ko organisé lata, ngay jébal noonu la ko conseil constitutionnel daal di xam li leneen bés bi le jour daal di ko ci toftal jëm ci Amadou Ba di xam ne ni moom nag noppi na ngir daal di sóobu ci élection yi leen fa naan ko moom kay Amadou Ba addublu makki et se lance à l'assaut des électeurs maanaam daal moom Amadou Ba noppi na nag fu mu nekk ni ma nga ca campagne ka nag fasciné daal di rek junjum yecci sin présidentielle 2024 Sud du Quotidien naan ñu présidentielle 2024 game over maanaam daal fu mu nekk ni jeex na tàkk nag a tàkk a tàkk maanaam daal fu mu nekk ni a caaxaan

action seen jafé jafé yor-yor del soit ci conseil constitutionnel naan adakna lepp lo xamanteni lépp jël nañ ko ca jam ñaajo mascarade ay ak kese teg si le le fatal eh, mom kay Macky Sall na coup perdu critique del soit ci loi amnistie voté à assemblée nationale ak ñi député yu Pastef naan les députés de Sonko lâche les victimes manam dal député yu ex Pastef dañoo daal war ñi di victime non la ko critique dadi xamlé ak teg ci les se tâche de sang madame il est député à Sangonenu, ay deret yu xonk le mandat à ñu Mondituri jiitu à mi kay dañ ko de sës ko ci miir bi mooñ ko sax fu mu daal a sax à tribune à ci projet de loi Et duñu daal di xamal ñi ci ñàkk seen bakkan diggante 2021 jàpp 2024 naan ñu à toll ci 86 Domi Adam, ñàkk nañu seen bakkan moom à Sall nag ca waxtu woo ma ngay nag daal amnistie te doomi Adama, di doomi sénégalais ñàkk seeni bakkan ci événement yi xew diganté 2021 jàpp 2024 Rémi mi quotidien xëy duñu daal di conseil constitutionnel naan les sept sages suivent la fin de la récréation à kay fu mu nekk récréation yi jeex na faw rek élèves yi daal delluwaat classe ya ngir daal jàngi seeni leçon Non la ko réew mi daal di ko Badio Camara ak ñooñam daal nañu bind seen histoire ci Rémi, l'évidence Mais nous connaissons ñu wax naan ma dem de waaye xolam neexul de ndax la mu la woon lam doon mébét dara antuwu ci nag mu mel ni dañ ko doon séntu ngir mu jàll ci la grande porte waaye daa mel ni nag wax ma sax petite porte waaye nag ca fenêtre ba jàppalanteer fala fasciné daal di jaar le quotidien le quotidien nan ñu ñoom Sat Sadiki daal nañu bloqué autoroute bi kii di Macky Sall jëm ci organisation présidentielle yi ndax nag dañoo daal di rejeté madame dàq lépp loo xamante ne ni moom Macky Sall tënkoon na ko ak ñu ñoom ca centre bu Abdou Diouf ca jam ci élection yi les échos naan ñu nag fu mu ni faw sénégalais daa saat seeni carte de naam amaat ko génnewaat carte yi te xam ne le 24 mars Ba de ñaanal na ko nag sant na ko gërëm na ko daal di jël Sidiki Kaba toftal ko nag ci place ngir amu daal ko utu ci primature libération naan ñu remue ménage au sommet maanaam kay Macky Sall fu mu nekk ni jaxasawaat nag na carte gi de jeexale ak stat mi ñu daal di a fësal nataalu ñaari gande yi ak kii di Iliman Ndiaye ak Ismaël Sarr naan ñu ah, tey nii lañ fas yéene daal di nag jàkkaarloo ak Villarreal jëm ci Europa League lii mooy li fi jot a ci ëttu yëglekaay ñu leen ñaanal kendalu jàmm. jërëjëf Cheikh Abdoulaye Dieye ñu lay ñaanal yow it kendalu jàmm te di ko sàkk ci yow noonu la ñuy ñaanalee téléspectateurs yi ñu